El Hadj Ahmed Aidara Karim Wade day ah amati na ndam ci kaw nguur gi de Walf Fadjri ne toogal gi ci lu jëm nag ci wàllum alal ji lawul ji day waaw ma ne la Macky Sall day xeex ba ca Monaco ñàkkati na ko ndaxte tribunal correctionnel ba nekk ca Monaco gee waaw ma ne la la nguuru Sénégal ga bëggoon day dafa ko de maanaam jël kon alalu Karim Wade googe ak ñeneen ña tuumaalaloo kay ak moom waaw daal di koy jox nguur ga ma ne la tribunalu Monaco googee nee na moo lànk ay avocat nguur gi day waaw nee na ñu nguuru Sénégal gi ci boppam day dafa am justice souveraine réew boo xam ne daal lànk ndaa ne tëdd ca suuf ne dogal bi nga xam ne nag maanaam kon moom la fikiré bi yëkkati woon day ñaar fukki fan ak ñett ci yoru mars 2015 ci njiitu réew mi moo ko dekka laa daal di koy ressuscité te di daan Karim Wade rek kese bu ñu gis nga Karim Wade mi lée dañu koo topp daal di koy at daal di koy dëg dara waralu ko rek lu dul wàllum politique kese maa la ko wax bañ Karim nekk candidat ci élection présidentielle 2019 bi kese la avocat Karim Wade yooyu yemuñ ca ci la ko tijjee yéen ñoom ma dikkee waaw ñoom daal jàpp nañu ne gis nga nguuru Sénégal gii ah. bu doon bëri la day leen a kon ba seen biir yi weex ñu daal di leen ne fëkk daaneel ba pare sëlëm leen bokk ci avocat nguur gi ne bu dee la ñu bëggoon amuñu ko maanaam mooy coowal Karim Wade kii ak ña ma àndal waaw mais lan moo tax ba nguur gi ci boppam day mënul fexe ba teg loxo alalam looloo jaralaat looloo jaralaat la jaralaat kay termine yéen kaay nee na toogal gi ci lu jëm na ci wàllum alal ju lewul joojee waa mën naa koo day nee nañu nguuru Sénégal gi dem leen toog yemuñ ca ndaxte compte Karim Wade ci boppam sax léegi nag dañ koo débloqué faf eh way samba ah, maa la ko wax waa ko seer day di ndaw yi nga xam ne nag ñoo ànd ak Macky Sall ci wàllum politique ñoom te def say Diouf ci Walf Fadjri waaw nee nañu gis nga waa PDS seen xel ni ñuy foye lañ war a baax di ñu jéem a imposé ab candidat boo xam ne day turam sax daa nekkul ci liste électorale yi looloy coow li bi gone yi Macky Sall ca parce ñu def président Macky Sall gagné kay waaye li mu def kay amul laam-laamee raay joxoñ joxoñ raay bàyyi la teg ba gi day waaw xeex yi nga xam ne kon xeex na koo uh-huh. la nguur gi bu ci ne laal nga ñaari téeméeri millions yegg na la te mësuñoo am ndam nag ca bitim réew tribunal yi nekk ca bitim réew mësuñ caa am ndam seen ndam yëpp suñu tribunal yi nekk ci biir réew mi dong la teew gis nga suñu magistrat yii ñu leen di tuumaal ne indépendance su justice bi ma ne daanaka ñu bëree ko contesté laa la wax nguur gi amul benn victoire bitim réew maître El Hadji Amadou Sall bokk ci ay Karim Wade nee na Henri Grégoire mi nga xam ne moo teg nii Karim Wade day wallaay bu tegee seetu day dañoo lànk ne duñu lëkkaloo ak Sénégal ndaxte waa mun naa koo ngi ne lànk ba tëdd ci suuf ne duñ joxe alalu Karim Wade li ca jamono joojee Khalifa Sall te nguur ga day démb ñoom lañ yóbbu tribunal sur côté yéene en tout cas ba day la ay avocat xaaf bëgg waaw defuñ ko de Walf Fadjri ne ñaareelu bis ade Khalifa Sall waaw ma ne lépp bloqué total vox populi ne en tout nguur gi day ak xaaf waaw ay waxi ñaaw sax la ñu ak mouvement bi njabooti élèves ak étudiants yu APR defante nañ premier moment rek di ndeke dañ leen a infiltré dañoo duggoon seen biir démb libération yi ne kaay ñoo xam ne damoo sàgg ne ca kaso ba lañ jëm day mooy Moustapha Diakhaté ak Bassirou Fall kii di saaga Tidiane nañ leen loxo de ma ne la bañ leen doon déglu ca digay gars yi kañ nga commencé weeri présidentielle 2019 yi ñëw présidentielle 2019 waaw Walfadjri nee ñeenti ñoo premier ministre ga de dañuy bokk de aa waaw ah Macky Sall nekkul premier ministre ah kay day bokk Idrissa Seck nekkul woon premier ministre ah kay day bokk Abdoul Mbaye nekkul woon premier ministre ah kay day bokk Hadjibou Soumaré nekkul woon premier ministre ah kay day bokk te nag amaat na ñaari premier ministre woon yoo xam ne ñi ngi ak Macky mooy Souleymane Ndéné Ndiaye ak ne am na ci benn étude du na waar ak li muy yàqal réew mi ñaar ci ay milliards jural moom cigarette nañ yokk njëg li ciment bi ñu yokk njëg li day ministre Moustapha Diop ci Sud Quotidien waaw nee na waxtaan naa day lépp normal laa naa alhamdulilah dem ne soox ne France day dem na final de door na Belgique 1-0 di xaar Angleterre ak Croatie kan mooy daan yéen ne Cristiano Ronaldo day jugee na Real Madrid laay la dem na Juve Juventus de Turin la dox sa day téeméeri million euro la cent millions d'euros ah! <laughs> alaaji football nga ca tubaab ya lu ëpp juróomi téeméeri milliards am na réew africain yoo xam ne sax seen budget yeggu fa yow say jour di fayee ko ay soixante quinze mille ay fukki junni CFA nga bëgg a jël coupe du monde